ñu dalal ko moom mii di Ndeye Tické Ndiaye Diop ministre de ministre euh, de l'économique numérique et de télécommunication nekkoon na fi tamit porte-parole du gouvernement Ndeye Tické maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu waa Thiès ñëpp. Mm-hmm. Bayal Khoudia Badiagne. ah di euh, mm-hmm. nuyu tamit waa R100. nuyu tamit quartier yu mag yi nekk Thiès yëpp. Mm-hmm. den xamal ne seen Ndeye Tické Kajoor Kajoor baa ngi nii. mi nga xam ne wax dëgg yàlla. Euh, sagu Thiès sagu président Macky Sall. mi ngi noonu Ndeye Tické di sagu Thiès di sagu président Macky Sall Ndeye Tické noo gisee plan Sénégal émergent. plan Sénégal émergent li ma ko gisee mooy dox na dox bi mooy li waral loolu mooy secteur boo dem rek nit ñaa ngi fay xëy di wàcc. gis nga gis nga projet président Macky Sall yi. Mm, dëkk boo xam ne ñëpp a sot xam lu ko waral. Ah. chantier yu bëri yi. chantier yu bëri poussière gu bëri gi. ñu ngi toj télé yi di defaraat. di jekk-jekkal teer baa ngi dem raay baa ngi dundaat kon président Macky Sall mooy président bi ñëw pousseeral dëkk bi ndax ay chantier waaw ndax chantier bu mu am rek foo cooli jolli foo pousseer ba jóg kon kenn du moom moom Ndeye mi ngi nii waaw waaw di doomu Thiès pire Ndeye Tické noo gisee dialogue national bi ah dialogue national bi daal xam nga lan la hmm. président woote na jàmm hmm. ku ci ñëw jàmm la tax a jóg ku ci ñëwul na xamal ne ëllëg lu xew boo taxaw fi di wax kenn du la faale. kenn du la faale gis nga président Macky Sall liggéeykat international la. Mm. gis nga président makki Sall nekk na koo xam ne ne amul caaxaan ci li muy def kon dama ne moom li mu bëgg ñun ñii bëgg ko dañ ko koy bëggale ba ci loolu mu bëgg amun koo am. jërëjëf mi ngi noonu ñu daraloon ko fii ci pencum Sénégal moom Ndeye Tické njaay di doomu Thiès bu mag bi Ndeye Tické. waaw waaw yaakaaru Thiès tamit di yaakaaru Thiès waaw waaw moom wax dëgg yàlla tànn dalee ko ci tànn beer ba ci tuur ba ci nat tuur dañu may invité. mi ngi noonu Thiès xaybalu ma leen seen dara. bàyyiwul sax kermesse. xale bu xale bu dugg lël ba génn lël. dañ ma ciy invité man daal su ma waa Thiès woo rek maa ngi fa. te man bokk nag ci espoiru Thiès te jàppale Thiès lu ma am bokk ak waa Thiès. mi ngi noonu. baal poussière sax bàyyiwu ko. tey nga toog fii. waaw ñu invité la bëgg la laaj benn ci loolu. nday baadu courant bee la jàpp ah ah jërëjëf nday yi boo koy def del tàggoo nday nga toog fii hmm. ñu invité woon na di la laaj ci troisième mandat wu président Macky Sall bii boo ba léegi kenn nangu koo tontu xanaa nga dimbali ci rek nday nga ne nday jërëjëf ndey démonstration yooyu boo koy def nday day taagoo parce que boo defee noonu damay mel ne que courant bi tamit ma dendal damay maas. nga toog fii. waaw ñu am yaakaar ne boo toogee fii li ñu posé ministres yeeg députés yi ak conseillers yeeg conseillers yi bu ñu la ko posé nga ne ñu réponse baa ngi nii te doomu Thiès pire nga di gaynde Thiès waa Thiès yaakaar la muy ci troisième mandat président Macky Sall bi. laa ilaaha illallaah Muhammad rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam laa hawla wa man du may def ak waa ay man du may def ak waa Thiès baa ay waa Cité Lamy du may def ak ñoom bayaal xudda ba jaañ ndey lu fi indi lii dama xam ne li nga ma laaj ni question waaw ak réponse ñoo aan mën a naa cee ñàkk bañ a tontu bu ma neexee. ah nday nday nday Tické nag waa Thiès dañ la yaakaar bëgg am lu leer ñu ne invité suñu ministre bii nga xamante ne suñu région bii la dëkk muy Thiès ñu invité la nga toog fii ngay doom yi buur piir am ay maam yi buur nga toog fii sa set maam yëpp buur leen nday Tické Njaay Alburi Njaay sa maam yëpp buur leen jóob la Dior Diop kenn du yow hmm. yaa ngi fëggatu ba léegi nday bi ngay dugg te dangaa ubbeeku woon di dox nii ne détournement dernier moment bi yàlla na jur jàmm dama xamul waa ah <laughs> sas yàlla na sotti géwél bi teemu laa weer déedéet daf may indil migraine da ngay palpiter déedéet migraine ah ah <laughs> ndey ah. kenn du yow li la li la bi di tag bu doon téesante moo def ko waaye laaj téesante mandat bi nag war nga ko mën a téesante di mandat bi boo ko tontoo téesante am na ñëpp a ngi xaar boo koy tontu téesante di am comme que moom rek nga bëgg tontu ko. xoolal lii. ah lii. ñëw fii nii. lii. waaw. mosoo koo gis lii drone bi la moom moo lay jël nii ne caméra bi. nday ma dee la question bi boobu. loo ci wax ñëpp ak lay na ah ndey ah, ah, ah sas <laughs> ah <laughs> yow xale bu góor bi eh, lii yàlla na jur jàmm yàlla na ci yàlla wis ndox mu sedd xam nga xoyaan njoogu Fatma Ndiaye xoyaan hmm. ak xames ah, ñooñu moom xam nga dalal jàmm euh, day tikkee dalal xel xam nga fa bi ne doon jàngale baadu ah ndey baadu <laughs> ah lii moom ndey yàlla na jur jàmm. question. oui yow mbéj nga jël de. mbéj man. <laughs> men men ah. ah ndey na mbéj de yëngal rab.